léegi nag bu loolu bu loolu jàllee entre Ama Balde ak Modou Lo Ama Balde am mbër la moo xam ne en chaque fois day indi loo ko xaareewul woon. Mhm. Ama Balde ak Tapha Tine mbër waada la bëree. ma mhm. jàkkaarloog moom dóor dóor Tapha Tine ñëw mu juyoog moom jàpp tànk bi. dëj ah, waaw loolu. mbëru Fass yee ko daan def ak mbëru séeréer yi. Ah, dégg nga ay ñoom Paul Maurice. Mm. ñoo moomoon loolu ay papis général. waaw waaw ñoo moomoon loolu papas. ah oh, ama nga mbër ma. <laughs> Ah, papis général xam ah, man moom mbër waa day rek laay si xel. ay ay ay ay Pape Morlo Pape Morlo. waaw mbër yu bëri nag disparaître nañ waaw waaw ci voyage bi la Covid bi gis nga ki nee na Gris Bordeaux toog na 4 ans. 4 ans yi dafa bëri mbëri yoo xam ne bu ñu bëree si waatul rek dañuy perte dañuy perte compétir. Mm, combat bi ngay wax dañuy perte. dañuy perte kii maanaam dañuy perte dañuy dee ci làmb ji. dëgg la ay bàyyi pël ay. super jamono Zarko ay lan 2000. mais Zarko sax moom mi ngi fi. waaw mais anam doo ko gis. am na combat gi. Ah. waaw bébé Saloum. ñooñu ñëpp doo xamante fan lañ jaar. ñoom dolfu ah dolfu ay ndóof. waaw <laughs> ah, lan 2000 ñooñu ñëpp léegi nag bu dee Ama Balde. Mhm. ngóoraam dafa bari. Mhm. te miin na combat bu metti hmm. ku ne seetaan na Ama Baldé ak Malick Niang hmm. Hmm. bu dee jël coup Ama jël na coup yoo xam ne dafa waroon a toog mu continuer résister Malick Niang jàpp ko jekk ko Ama pattarañu ko gis nga benn coup dóor Malick Niang rek Malick réer mu for ko te combat boobu amul ku mënoon a analyser ba ne Ama Baldé du ko ñàkk parce que Malick Niang guddi yooyu mu tolloon maanaam euh, dafa combat bi dafa jaxewoon ci Ama Baldé mooy boo xool ngóor moo ko ci génnee Ama Baldé daan na Papa Sow Papa Sow ak muuduloo boo leen di comparé ci bëri sorewuñu hmm. sorewuñ mbër yu ndaama lañ ah hmm. mbër yu ndaama lañ hmm. dañuy xeex te du du nga jàpp leen jàpp seen tànk wala nga wër leen doom ba tax na ñu ñu bàyyee la combat bi ku weddi xoolal uh, Eumeu Sène Modou Lo Eumeu Sène nu nekk jàppe na ko tànk Modou Lo taxul mu mën ko de mën ko daaneel Ama Baldé daan na Modou Lo daan na daan na kii mais Modou wax naa ko sànq mbër la mu nga xam ne ci côté xeex dafa wex dafa doy waar waaw mbër mu wex la en général bu kuwam dalee rek buntu feeñ <laughs> jaar na ci Issa Pouye gis nga bi ku yi dalee rek Issa Pouye dafa daf ko bàyyee combat bi waaw jaar na ci ak euh, Eumeu Sène dernier combat bi bu xasee ba am coup rek am na li mu bëgg boo xoolee Tapha ak Bombardier Tapha Tine dóor na fukki uppercut taxul waa ji rot hmm. Tapha Tine euh, Elton Tapha Tine def na uppercut bu nekk taxul waa ji rot mais hmm. Modou Lo bu ne nii ba génne droit bu ne bam bam mu jeex buntu feeñ. Hmm. amaa nag est-ce que mën naa jàpp Modou loo lu dul mu maanaam euh, kor bi mu moytu ko. Hmm. su ko mënee moytu. Ah. xëy na mais Modou Lo en tout cas moom man du wut kat. du wut moo tax combat mën ngaa léewtoo lu yàgg. mais Modou loo pour nga jàpp ko daan ko dafa jafe. ok la dafa jafe taxantaan la boo xoolee Bombardier ak Balla Gaye rek ñoo ko am. voilà léegi ci côté euh, bëre. Hmm. mystique tamit dana ci dana ci bari doole. ci làmb yooyu waaw. côté mystique ñëw ci làmb ji gàllaaj yi toj. Hmm? gàllaaj yëpp toj. waaw xam nga mbëri yi mbëri yi <laughs> mbëri yi da cee bëri ñoo xam ne dañuy nappaate mais amuñu mystique. Hmm. Hmm. bari na ci. non sëñ Ba ñëwoon ci mystique démb bi mystique démb bi. waaw mystique démb bi am na solo trop quoi. mystique démb ji man Balla Gaye dama ko yàgg a gis mu am yu bëri yu mu daan def. yoo xam ne bii paa defu ko. waaw am na ay xeetu yére <coughs> xeetu mbaxana benn affaire bu daan sex bopp tan bi. Mm. dégg nga ak ak ak saaru saaru borom jalang yooyu daan sol saaru. moo dem na ba ñëpp xàmmee ko sax waa mm. Casamance boobu. Mm-hmm. gisuma ko daal man. ok waaw gisuma ko. dëgg la te mystiquement tamit Bombardier. Mm. ah mbër yi wax nañ ne moom dafa nangoo moom mbër yëpp moo ci dàq fay sëriñ. kon ah. dégg naa ñu naan Bombardier dafa am sëriñ yu garaaw. dafa non dafay fay xam nga mbër yi duñ fay. man ah man fii may wax ak yow bal yow Tafa man du ma ñaanal mbër. lu tax dañu am mbër yi duñ fay. pourtant dañuy fay ay millions ndax. Mm, ah yow mas ngaa gis mbër mu fayub sëriñ million. ah si si si yow gis nga ko ah, gis nga ko yow. Ah, yi dañuy ñëw ne fay naa ñëpp de waaye fayuñu de. jaaraan mu fay sëriñ million. ah man de gisuma ko. gis naa ko man man daal man. mbër yi moom <laughs> ñi ma ci dégg. ci sama ah. mbokk sëriñ si. mooy daal boo leen mënee may saafara ñu jël mais duñ la fay xaalis.